kenn koo xamee ni sañ nga ne à partir du moment où loi bi voté nañ ko say liberté individuelle sa capacité de résister ta capacité même de participer au développement de ton pays en disant non yooyu yëpp da nga koy daal di ñàkk immédiatement parce que simplement décider nañu plus jamais aucun Sénégalais n'aura les moyens légaux de se présenter et de refuser un dictat qu'on lui met devant lui ban réew la ñu mën a doon imaginez-vous ban Sénégal mooy taxaw ban lendemain la ñu jox suñu bopp est-ce qu'un Sénégal qui a qui s'est battu il y a dix ans déjà encore plus loin encore depuis les indépendances encore plus loin encore dans l'ère coloniale le Sénégal qui s'est battu pour être une terre de droit une terre de justice une terre d'indépendance aujourd'hui tout cela est terminé parce que simplement ils ont caché dans un dispositif de loi l'ensemble des lois les plus scélérates qui soient l'ensemble des lois les plus liberticides qui soient et l'ensemble des dispositifs qui aujourd'hui qualifient le Sénégal comme l'une des plus pires dictatures qui puissent exister. Il n'y a plus d'état de droit avec cette loi. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus de liberté, il n'y a en réalité plus de citoyens. maanaam amatuñu loi amatuñu justice amatuñu liberté citoyen bu moom boppam gor bu moom boppam amatul ci réew mi bu ñu mënee yëddu sëriñ yëddu politique yëddub citoyen yëddub syndicaliste fu waay mën a nekk donte la ngay def yow du sa coobare bopp ay nit jaar ca def ca lu bon mën na la fa fekk ni la ràpp ci biir kaso sa giiru dund ban réew la ñu bëgg a tabax ak ban Sénégal la Macky Sall bëgg kon ñun daal dañuy takku lijjanti reyante ay doom deesi pour moom mu jot ci réew mi biñ ci jotee ba pare mu tànk tënk ñu yeew ñu ñun ñëpp def ñu ay jàmm damay laaj Sénégalais yi ndax Macky Sall dafa ñu fekkoon ñu ñuy jaay marché muusante mu jënduñu wala déet su fekkente ni dafa fekk ñu ñuy jaay ñun sénégalais yi marché muusante mu jënduñu kon loi bi am na sens mais bu fekkente ni li mu am ñun ñoo ko ko jox dëgg-dëgg yabaate mi ngi bëgg a dugg et yabaate benn sénégalais waru koo nangu il faut pas que sénégalais yi jàpp ni affaire politique la lii moom politique jegew ko du parparloo jegew ko àq ak sañ-sañ gi ñu yàlla jox boole ñu ko ci réew mi moom la ñu xotti tey jii et benn sénégalais waru ko nangu maa ngi leen di